noo ngi leen di nuyu te leen ziar baax di leen balaax tey balaax ñëpp di gisee si nuyoo boobu kilifa gu tedd gi si biir jotaay bi di sëñ Ousmane Mbakke ibnu sëñ Cheikh Ahmad Mbakke Gaynde Fatma ak mbokkam yu baax yi nga xam ne moom la bokkal ci jotaay waaye di nuyu di ziar baax sëñ Abdou Khadim Ndiaye mi nga xam ne moo fi toog toogaay sëñ Gawasan te rakkam yu baax yi wutu ko si jotaay bi di nuyu di ziar mbooleem nag am mbokkum taalibe mbokkum jullit ne tey dégg suñuy kàddu di yëkkati ay kàddu yu kàddu yi cant yi suñu Abdourahmane Dieng koy wax léegi gannaaw lu ci gisee suñ kilifa yu baax yi te loolu sëñ Ibrahima jëmb dana ci ñëw muy njabootu sëñ Tuubaa gi waaye xam ngeen liggéey bii di bisum sëñ Daaru Asan Njaay dañ koo teg ci ay loxo yoo xam ne dañ cee wutu mbooleem njabootu sëñ Daaru Asan Njaay muy jamaatu ahibaahi Cheikh Al Hasan te ki nga xam ne moo ne ci bopp fédération bi di sëñ Maam Dam Njaay moom sëñ Cheikh Mouhamadou Njaay Hasan ak Baye Góor Binta Parcelles ak mbooloo mu bari sëñ Xaadim ay imam mi nga xam ne moo lépp lu jëm ci wàllu coordination bi nga xam ne lépp li magal gi moo ko doon coordonné di secrétaire général ak banqaas yi ñu ko àndaloon ñooñu leen dénk magal bi ni ko suñu Abdourahmane Dieng waxee léegi waxtu wu demee 21 janvier ci tëkku saan ba jëbbal liggéey bi ki nga xam ne moo fi toogal Sëriñ Daaru Salaam sa jotaay boobee la ñuy ngir waajal année bi ne suñ kanam woowu nag kon ñu tàmbali woon ko le 21 janvier 2022 boobu ba léegi fu ñu ci waay gis fu ñu ci waay dégg këyit bu ba nit jot muy ab bataaxal ci tuur jamaatu ahi baahi Cheikh Al Hassane ci turu njaboot si ndaw seen ngeen ko defee te njaboot gaa ñuy teew kon loolu dana baax ñu seedeel ko ñiñ daan dem ñoom ñuy gis ci turu kër si dana baax ñu seedeel ko suñ kilifa yu baax yi toog xam ni fenn fu nekk ci luy jagal bis bi dem nañ fa ba yàlla dogal bis bi mel nii mu mel gannaaw cant yi aju si biir kër gi moom muy njaboot gi ak fédération bi ak dëkk yi ci aju moo xam ci biir réew la ak bitim réew si nga bilaxañ leen joxe na seen i kàddu can ndax tudd na mbooleem dëy yooyu woo xam ne aju na si jamaatu ahibay saasan dëkk boo mën a ne donte si bilaxañ leen tudd dëkk ba waaye wax na ni mboolem dëkk yi tudd sant na leen wax na mboolem diaspora diaspora nag lu génn senegal <clears throat> yaa ngi ci biir te loolu si bilaxañ leen matal na seen i kon ñun cant yi ñu gën a joyee day jëm na ci ñeneen ñoo xam ne xañ na dañuy ay soppe wala yow loo xam ni njaboot gi dañ ko yittewoo te loolu waxtu wuñ demee ni dafañu ak jàppandi ak benn benn nit yoo xam ne donte ci biir njaboot bi lañ bokk def li ñëpp def waaye dañu ci soowaat yeneen sas yoo xam ne loolu faaw ñu biyoo ko ci kanamu kilifa yi ndax lu waaw loolu sëñ Ibrahima Diagne am na lu ci tudd léegi màggal gii 2023 diw ñi xam ñoo jiite liggéey bi léegi si si ngoon laataa ñu jël kàddu yi am na ci ñenn ci ñoom ñu dajee ndax waxtu wu ne danañ xool ñi mën a daje ñu dajee biñ dajee wax nañu ne màggal gi moom mënu guñoo def seen teesu màggal gi waaye fi mu toll nii liñ mën a wax ci kanamu mbooloo mi kanamu sëriñ ci teew mooy màggal gi moom ñun dañuy wax ni jàpp nañu ne am nañ ci quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñun loolu lañ jàpp xañ na nag keneen nag mën naa jàpp lu wuute ak liñ jàpp waaye lu ñu yoon liggéey te di koy wax te lii de fu leer la nga teg waaye da nga fi na ñaari seede yu yu dëgër lii jëwuñ ñuy wax te ñooñu ñaar ku leen xam baa nga xam seen jëmm xam leen xam nañu du ñu ñuy waxee nit lu ko neex baa nit ñuy waxee bakkan donte ne kenn si ci ñun la bokk waaye bu ñu tuddee aw turam ñi ko xam ñëpp danañ mën a seere ni jëmm jooju lu mu wax dëgg la ndax ci dëgg lay dox ci yooyu wax kooku mooy sëñ Mbacke Ndiaye moom sëñ Bay Fallou démb bi ñuy waaj bisu sëdi man mii wax na ma ne moom dafa yéeg fi mu toll màggal bi dafa yëg yéeg goo xam ne mel na ni màggal yi dafa romb fu mu daa toll ndax ci nit ñi nit ñuy jëflantee at at moom at li mu yëg nga xam ne aw yaram day am ne day mel ni daa bu bëgg a xew daa am loo xam ne bu bëgg xew day mel ni nit ki da koy yëg ci yaramam moom foofu la waxee ni kon dafa mel ni dafa yëg ni màggal yi kat soo bi mu tolloo bi moom mën na ni mos fa toll te ci yokkute ci anam yëpp at yu bàyyi waaye yu ci loolu jàpp naa ne noonu mu ko waxee kilifa yu bare bare mën na ko waxee noonu am na ku ñuy wax bàyyi moo ñaan ñu bari xam na ci Daaru Xudoos tey jii yéen wax na ma lu mel noonu ne ma day dafa gis ni dafa seetlu màggal gi dootul màggal daw daw suñu daw sën daa mel ni màggal màggal Tuubaa la ndax day mel ni Tuubaa foo génn da ngay yëg ni màggal suñu daw sën kooku jàpp naa ne ku ko xam-xam ci Daaru Xudoos bu seedee loolu kon mën nañoo seede ni màggal gi ren am na avancement am na yokkute bu wéew wéew wéew loolu nag gannaaw ñaanu kilifa yi ak jàpp mbooloo mi kenn ku nekk wax dëgg yàlla sant gi moom kon danaa jaarul nag ñu ñin dénk liggéey bi tàmbal suñ maam daam suñ alaj góor suñ xaarim imaam ak ñi leen di jàppale ñu fësal na seen i kàddu yi cant ci kanamu kilifa yi jëm na ci mbooloo mépp loolu faw nañ tudd si ay tuut ba ay doyo fu mel ni doyo ahibaabu xadim suñ gisoo sëñ Mouhamadou Lamine Bara jàpp nañ ci lool ci wàllu matériel boo xam ne ñoo ngi koy kilifa yi di ko seedeel ñëpp suñu doon di seedeel ñëpp daayoo Hizbut Tarqiyyah bu Daaru Xudoos ñooy jàpp nañ ci lool ci wàllu matériel yebal fi seen kuréel 1 ñu ñëw jàng fi barkeelu ngi wane fii de gin fi ak suñu ci gox bi ñu bokk dëkk ñooñu day fonction ku mel ni maire Abdou Ka jàpp na ci moom tàmbale ci le 17 mbale mi ñu doon woote fii ci ay moyens yi nga xam ni yëgati na ko jox ko ci dawe bi te bu ko deful woon it du nga ci wax dara kon bu ko defee faaw ñu gaaw a cant yooyu ci anam yooyu ak ku mel ni suñu Cheikh baa Ndiaye ñëpp xam ne si kër gi la bokk di jëf la ko si kër gi waaye teewul day wax ni daa bëgg di jàpp ci communication bu màggal bi di génne alalam du bari di ko def ci ay télé ak ay site ngir ñu ñëw di tasaare jàngaleenu sëñ Daasan ak bisu sëñ Daasan bi ba mu àgg tey fii mu àgg ak ku mel ni Alaaji Taala Cubb ak bay Góor dakaar ñoom it jàpp nañ ba indi fi Touba TV te teewul dañoo génnewaat seen i jaayante def ko ni ko ñëpp defee loolu nag gis nañu ne bokk na ci li ñu wan li wane ne màggal gi kat fi mu toll nii fii mu toll loxo yooyu ci dugg feeñati bu baax waaye di sant na wàllu santé ndax digg nañu woote màggal bi di tàmbalee démb maleem da tey ji ñu yendoo seet nit ñi wax dëgg yàlla hôpital Cheikhul Khadim hôpital bu sëñ Mbacke Madina mooy jéemul poste de santé bii nekk kër Maam Diarra te sa jagal tokkóor bi jàpp nañ ci lool lool lool ci wàllu santé loolu faaw ñu seedeel ko suñ kilifa yi nga xam ne fu nu mas a seen tuur lañ fa demee fu nu mas a waxee ci tuur seen tuur lañ fa waxee kon ñooñee bu ñu ñëwee daan feere fësal ni fan daa dem kat ci tuur bi si ndaw san ñooñu lañ doon defal nañ ko la am nag mooy sàkku ak ñaan te nañ ci loxoy kilifa yi ba ñenn ñu ne lañuy ñuy di ko def yàlla may leen ci ay daraja yu gën a gën a wàllu presse sit yi rajo yi tele yi ñëpp mëne su leen a tudd ñooñu faaw ñu fësal ndax xam nañu ne weew wii di weeru janvier rajo yi ba télé yi ñu si bari at mboolem site internet yi jaar-jaar ak taxawaay suñu doo suñu ñu bare bari am na lu ñu ci xam te fekkiwuñ jotaay ba dëkk yoo xam ne demoon na fa defee reportage yooyu yëpp wax nañu tasaare ko te loolu jubluwuñ ci lenn lu dul xam ni sëñ Darou Assane nii kat njariñ la loo xam ne si nii ñun rek wóor ñu ko téye di ko jariñoo ndax wóor nañu ni li sëñ Darou Assane yow mën nañ see jariñu mboolem ñu ko yaakaar ci àdduna àllaaxira te du tax loolu jeex. kon loolu nag war nañ see mën a yéene mbokk mbokk teel mbokk julli yi ba ku neex nga mën a ñëw jariñu fi si Daaru te loolu yaakaar naa feeñ gi mooy tey li fi teew si xeetu awu nit xam nañu de du njaw sëñ Daaru ñu jaayante at moom waaye sopp yaa ngi si mbokk yaa ngi si xaydaa ji am na jaam yaa ngi si te loolu yaatalu waxtaani sëñ Daaru bokk na ci ñu bari li leen fi indi kon looloo tax ñuy fësal li nga xam ne mooy liggéey sëñ Daaru bu dee ci wàllu Croix-Rouge ak wàllu ñu yow service du seen ñoom it wax dëgg jàpp nañ ci bu baax a baax a baax loolu kon faaw ñu fësal seenu jàppale li ci des na mooy ñun njaboot Sëñ Daaru Asan Njaay mu am lu ñu war bàyyi xel loo xam ne si nii danañ ko sukkandikoo ci jumaay Tuubaa gi jumaay Tuubaa gi mboolem ñun muur yi gëm nañu ne ñaanu Sëñ Tuubaa gu nangu la kenn ku nekk boo bu ñu joxoon kër nga waat ne ñaan gu nangu waaye xam nañu ne ñaan gu nangu dogoyee ñi fi Sëñ Tuubaa woon doyloo wuñ ko rek dañoo jub xam ni ku bëgg a tabax jumaa danga nga wut matériel bu koy jëmmal loolee bokk na ci taxawaay ya Cheikh Mouhamadou Moustapha taxawoon ànd ko njaboot Sëñ Tuubaa yëpp ba jumaa ji mën a taxaw kenn ku nekk xam ne lii ñaan du nangu la waaye bu fekkoon ci ne njaboot jub dañoo toog jàpp ni ñaan gu nangu la di xaar jumaa ju sotti am naa yaakaar ni jumaa de mën naa am waaye day mën naa yàgg loolu ba moo am kon faaw ñu xam ne kër Sëñ Daaru Asan Njaay fii mu toll ñëpp xam ne Sëñ Daaru Asan liggéey na Sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne bis bu set ñu gis si lu bees ba loolu moo indi fii màgg gi toll waaye ndax dañoo war a doy loolu kon dañoo waa jàpp ne fu nu tolluwee bu déwénee dañ ko waa weesu te màggal gii ñu dëg ma day màggal goo xam day màggal histoire yàlla nañu yàlla may si bakki suñu da siña ñu ñëpp ñu fekk ko kenn bañ ko wuute waaye màggal goo xam ne dañuy wax ne ci de suñu daasan téeméeri at mu am ko ci biir suuf loolee ak njabootam taxawaat di ko màggal loolu du sax wane suñu daasan njaay waaye dañoo wane wane ne sëñ képp ko liggéeyal suñu borom fay la ndax ku fi jógee téeméeri tey jii sa ginnaaw mel na nii mu mel loolee ñun njawa si nga sa dañoo war a wan ni liggéey Sëriñ Tuubaa kenn ku ne ku koy def da ci fayu kon bis boo ñu dëgmal di màggal deux mille vingt janvier deux mil vingt quatre yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekk ko kenn bañ a wuute ci ànd ko fekk ak ko tal waaye màggal la yoo xam ne Sëriñ Abdou tudd na ko léegi. loolu nag wàccaay moo tax fédération bi di xamal mbooleem selil nañu waaj. xam ni am nañu yéene ak pas-pasu fu ab dëkk ne ab selil am fa ñu am yéene fekk la fa ñi nekk diaspora ñoo ngi leen di ñaan ñoom ñu xam ni war nañoo tàmbali waajal 2024 ci ay waxtaan moo xam ay journée culturelle la ay semaine culturelle ngi xam ni noo ngi waajal bis bu mag a waajal muy bisu mag suñu doo sa te loolu bu ñu fàttalikoo tuuti ci ginnaaw 1995 yaakaar dégg isbu taxeer màggal duñ doon màggal wax ni centenaire ne Tuubaa la yaakaar naa bokk na ci li njëkk a wanewaat dimension màggal Tuubaa du suñu safar gannaaw bi muy dox di ba asti fi mu asti kon nag dafay mel ni nit la nga xam ne mooy ndonaam ñu ko moo ko waa wane fonkeel bu ko fonk nit ñi mën koo fonkale loolee loola tax kon dëgg bi ñuy laase mboolem fu ab teelu bene te ab dëgg amu fa jokkoo la président am ak secrétaire yi ak diw ñi xamal leen dëkk ba nga dëkkee am na njaboot ju fa ne te ay doy si na seen te loolu liy firnde ni am na doy yi xam ñoo yaakaar ci suñu sa njaay kër goo fi dugg ñuy def ab ziyaar général da nga fa dégg aw dëkk boo xam ne kër googee am nañ ko te doy suñu sa njaay amu ko ndax nit ki mën naa yaakaar benn doomu suñu sa njaay baa benn suñu daw sa njaay bu wutal ko ab doy si ab dëkkam te mun ko suñu suñu daw sa ab doy kon faaw nañu bàyyi xel ni mboolem kër yi bàyyiwuma genn kër siyaa yu bari nit ñi dañ fay teew yi kër goo fa dugg da dégg ñu tudd dëkk boo xam ne am na ab dayoo bu ñuy defal kër googee te kookee ñu koy defal jimmi si ndas ñaay ki tax ñu koy def kon sëñ bi deful daa ñi ñu waxan mooy ña fa nekk nañ xam ni ni ñuy taxawalee seen kilifa googee ab dayoo mbooleem jow si ndas ñi jox nañ ndigal ñëpp jàpp ci dayoo bi lu tax kon taxawul dayo si ndas ñaay loolu nañ ci bàyyi xel nañ bàyyi xel loolu baax ndax kilifa goo ci mën a laaj tàmbali si mag mbase nga gën a tuut tànk amu ci kenn koo mën a toog ab jotaay te waxul ni dawe si ndaw sa njaay fonk leen ko jiital leen ko ci lépp loo leen di def tax ñun ñii di wax ak yéen xam nañ ay dëkk yu bare bare teel bi dafa nekk amoon nañ ay dawe seen kër seen te amuñu dawe si ndaw seen njaay kon dañoo bëgg bu ñu jugee fii dëkk yooyu ñu xam ni nañ fa def ba taxaw fa dawe seen kër nañ fa taxaw dawe si ndaw seen njaay kon loolu ab soññe la ngir waajale ko eh, waajtaay yu bis màgg yi ne suñ kanam beneen bi mooy bis yi ñu tudd léegi muy lu ñuy waajal ngir jëm ci sant wu sëñ Doosa Njaay dañoo bëgg jotaay bu ñu mën a amati moo xam waxtaan la moo xam am ndaje la ñuy bàyyi loo xel ni bis yu màgg yi ne suñ kanam muy ab centenaire ndax téeméeri at te du caaxaan téeméeri at du caaxaan fi mu toll nii yàlla mën naa dogal bu nga ko dee def maanaam ñu néew ñoo ko fekke woon ñu néew ñoo kon bu ñu defaat yeneen téeméeri at ndax dañu am. lu toll nii li ko fekkoon fekkewaat ko kon dañuy xam ne ñeneen ñoo ko fekkewaat kon ku yàlla defal taw féexe ñu jëm ci bis boobu na nga góor góorgóorlu loo man ba ndamal suñu dawsan yi nga xam ne moom nañ ci bëgg a wanee ndax wënu jubluwuñ ci lenn loolu wanee ndamal suñu dawsan te suñu dawsan képp ku wanee ndam suñu tubaa nga wanee ndam ndax suñu dawsan lu mu man lu mu am lu mu man lu mu def lépp suñu tubaa da delluwaat kon lu luñ jubloo wane suñ suñu dawsan suñu tubaa lañ ciy wanewaat kon looloo tax ñu bëgg a tàllalaat loxo ñëpp rawatina ñi ñu bokk liggéey bi ñu xam ne liggéey bu mag mi ñuy xaar suñ kanam fas nañ yéene nag lu ñu si suñ borom may si kattan danga ko def si fekk nit ñi waxtaan ak ñoom soññi leen ndax noo ngi bëgg gannaaw mu ci waxtaanee ak kilifa yi ay journée culturelle waxuñu benn ay ay journée culturelle suñ doo suñ njaay ci dëkk yu mag yëpp dëkk yu mag yëpp te loolu li ñu def ba ci démb mën naa firnde ne loolu dana am ndax xam ngeen ren di màggal gi am na ñetti yoo xam ne commission commission culture bi ak communication bi dem nañu fa def ay waxtaan sa dëkk yooyu loolu ñoo sant la dëkk yi ñu demoon nit ñu jàppalee ci ab lañ doon sàkku ci dalarga at liñ fa doon bëgg di waajal yooyu nag ci yeneen ay yu bare bare bare ngii wala suñ wala suñ doo sa di sant bu baax it wàccaayu mag suñ doo sa ngi ñu ngi ko tàmbaloon la 7 janvier ziyaara général ndax ñun dañuy wax ni ziyaara général mooy ubbi mag suñ doo sa njaay kon ziyaara général bi moo doon moo ko waaye bu ñu ci jugee am na jotaay yu am solo ñu amaloon di bis boo xam ne da koo jegeloon njawoo si sëñ Iba Ngoone Njaay di sant ci tout fédération bi jaar ci suñ xaari imam mi nga moo koo doon lool sa somb Touba njaw si Iba Ngoone suñu Abibu Njaay mi nga jiite taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci bis boobu jegee si sëñ Iba Ngoone Njaay waaye di sant waa mboo ñu ma Masamba Kan si njiite sëñ Ousmane Kan taxawaay yi nga xam ñoom am nañ ko ci niñ dalalee mbooloo mi at la nga xam ne di xam ne koo xam ne gisagooñu séenuñu te xam ne fas nañu ne ba ñoo bàyyi ñëpp daan def ndax bi ñuy def ay gëstu gis nañu si Daouda Ndiaye seexal na ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne seeni tuur ngi fi xam na ne xam na seeni njaboot te ñooñu nag dañoo fas nañ yéene bala ñoo bàyyi fuñ ci yàlla may ñu mën fa àgg dañ fa àgg bu soobee yàlla ba ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne njaboot sëñ Daouda ñooñu seexal ndax am na si njaboot sëñ Daouda ñoo xam ne seeni ceex ci doom yi la amee te bàyyiwuñ kenn olof day wax ne daanu na dafa daju suuf waaye li ñu fas yéene daal mooy ñun fu ñu daanu dañuy xam ne fa ab jël bu wéyoo te ñu jaaree fenn fu ne xam nañu njaboot yi wàcc nañ fi kon nag ñi si def nañu séen saxam ñooy ñëw bu nañu ñëpp séenu ci seex yi ñu wax léegi nii xam ne ba ñoo bàyyi fas nañu yéene daan dem fépp bu ko defee nag fi ñuy jeexale suñuy kàddu dafa am jàmbat boo xam am na Dakaaw am na Touba am na feneen mooy dëkk boo ci dem ñëy wuy si dëgg mëtul sax asaka yi ña fa dëkk loolu baay góor léegi ñu koy wax di soññee bëgg nit ñi xam nañu fi mu dal la mu am Dakaaw wuute na lool lool lool ak lay teew sa liggéey ba ndax bu doon téeméer jàpp nañu sa fukki teew te loolu ku xam dëgg fi mu dal sa ñaay xam njaboot yi nekk Dakar xam nañ li bàyyi góor wax mooy dëgg waaye loolu ma ko waxee boo demee Italie ñu waxee la ko noonu boo demee France ñu waxee la noonu boo demee Sénégal foo Sénégal foo dugg ñu waxee la noonu ndax ñi yooyu dooyoo Touba bi xam nañu ne Touba moom ci ab teewaay mel nañu moo gën a gën a gën a des lu bare bare kon loolu occasion bii nga ñëpp ñu fi teew njaboot gi kilifa ñëpp teew kon noo ngi tàllal loxo ku yaakaar suñ doyoo sa njaay bàyyi xel tëkku saani bàqiya baa tusbaa yu bàqiya baa onze bàqiya ñu daje ci ab daje ci buntu jaay sëriñ bi tiim la ñu ne tey jii ñun ñi ñëpp jeexal na tàkk ci xalaat jëb nag suñu bismillahi irrahmani irrahim la hawla wala quwata illa billahi al aliyi alazim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin al amin al makin wa ala alihi wa sahabatihi sawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Abdou Khadir xalifa bu seen Jalla Xasan mi góor ak jigéen baa ndaw fu ngeen fi man di ne jiital ci nuyoo boobu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu fi toog toogaayu sëriñ bi di ko ñaanal sun boroom yàggal ko ci kanam taalibe yi ak ci kanam njabootu sëriñ bi te may ko mu àggale mébétam ci diine bi ak ci yoon bi ak ci bokk bi ak ci réew mi ak ci Sénégal ak ci mboolem àdduna bi naka noonu moom sëñ Abdou Khadir ba tey ñu ngi nuyu sëriñ Ahmad Muxtaar bi fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ak njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp di ko ñaanal su moom yàggal ko ci suñu kanam moom itam mu yàgg ci gannaawam te yàlla may ko mu àggale ay mébétam ci diine ji ak ci yoon bi ak ci bokk bi ak ci réew mi ak ci adduna bi yëpp loolu it mi ngi koy ñaanal mbooleem njabootu sëñ Tuubaa yëpp gannaaw loolu sëñ Abdou Khadir mi ngi yëkkati kàddu yi cant ak i ngërëm di ko jëme ci mbooleem sëti sëñ Daaru Xasan yim bokkal sëñ Daaru Xasan te mag leen rekk tax mu jiitu ñu topp ci moom mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm ci taxaw gi ñu ko taxawu ci liggéey bi ak jàppale gi ñu ko jàppale ba lépp lu waroon a jafe yomb ci moom di leen ñaanal yàlla yàggal leen fi te àggale seeni mébét ñoom itam waaye mu ngi sant it suñ doom yi di sëtaati sëñ Darou Xasan yi ñoom itam ci taxawaay bi ñu am ci liggéey bi te loolu jaaroon naa ci biir dootu jaar ñu di ci sori kon gannaaw loolu sëriñ bi mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ni ay kilifa lañ ay wëllëre ay am di jàmm ay dëkkandoo te bu bis bu ñëwee ñu ñëw ànd koog nun doonte mbooloo mu tase fi barab faw leeg-leeg mu am ay xat-xat yu mu indi ca waa gox ba nga xam ne ñoo fa dëkke waaye loolee lépp ñu di ko bànneexoo ñoom dëkkandoo ak am ji jàmm di ko bëgge ba lépp lu doon mel ni aw naqar la waroon a doon mu faatu di mbégte ci ñoom ngir jëmmi sëñ Daaru Asan yàlla na yàlla fayal ñëpp yu àdduna ak aaxira kon gannaaw loolu sëñ bi dikk ci mbooloom kër gi di taalibe yi nga xam ne lépp ñooma ñooy jànkoonte coono yi ba nga xamee ni màggalu deux mille vingt et jàll na ca suba sa rek ñu tàmbali woon liggéey bi ak di ko waxtaane ngir bu agsee rek lépp yëwén boobaak léegi di fukki weer ak yaar ñu dikk ci deux mille vingt kon coono yooyu yu metti la yu yàgg la waaye nag ñoom itam fuñ teg seen jaww asan ci seen xol tax na coono yooyu moom keneen a koy gis keneen a koy yëpp waaye ñoom gisuñu ko yëguñu ko muy nag mboolem ñi nekk ci réew mi ak bitim réew ak fu ñu fi man di ne taaliba yi di daairatu ahibaa Cheikh El sëñ bi ñu ngi leen di sant tàmbalee ko ci njiit yi ak ña ca topp ba ñépp daj ka ca gën mage ka ca gën ndaw ñépp rek góor ak jigéen sëñ bi bàyyiwul kenn ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp ci coono yooyu ñu jànkonteel ngir rek bisub sëñ Daaru Xasan bii yéwén kon nag at mi jeex na màggal gi jàll na lépp yéwén na yàlla mi yéwénal yàlla na yéwénal suñ mbiri àdduna ak suñ mbiri aaxira ci yéwénal googu ñu yéwénal ah, bisub sëñ Daaru Xasan bii waaye nag kon cant yooyu yëpp rek mbooleem ñi nga xam ni dañoo ànd ak ñun liggéey bi te ñi fi jaar lim nañ leen wàllu presse bi ak ñépp rek ñiñ fi tudd dégg nañ leen ci ñi nga xam ni ñoom ñépp dañoo am wet guñ féete te mën a féete bis bi ak bis yu mel nii ci luy tax mu gën a yéwén luy tax mu gën a yomb di tudd nañ fi docteur tudd nañ fi ñëpp ñi ñu fi tudd ñëpp rek ñoo ñooñu sëñ bi dégg na ah, seede yi ñu leen seedeel ci seenu taxawaay sëñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal ak yokkute ak yëkkatiku ak dolliku ci kenn ku ne ca fa nga féete ci sa liggéey bàyyiwul nag kenn kuñ fi tudd rek sëñ bi dégg na ko yàlla na nu leen yàlla fayal fii ci àdduna ak aaxira kon loolu mooy cant yi nga xam ni moo jëm ci mbooloo mi tàmbalee ko ca kaw ba ci suuf di sant yi suñ kilifa yu baax yi nga xam ni wax dëgg ñoom itam dikk nañ ànd ak ñun bis bi ak mbooleem lu di ay daaira ak i kuréel yoo xam ni kenn ku ne ca wet ga nga féete ñëw nga ci ànd ak ñun muy jàngkati xasiida yi ah sëriñ yi ci njàngum alxuraan mi macha allah kat yi yooyu yëpp rek ñoom ñëpp kenn ko ne wet nga féete dikk nga participer ci bis bi ca wet ga nga féete ba lépp jag sëñ bi gis na ñëpp yëg na ñëpp kon ñaan yooyu muy ñaan ñëpp ngi ci biir kon gannaaw loolu kàddu yu soññee ak digle ak ñaaxe kon sëriñ bi mi ngi fàttali mbooloo mépp li tax yàlla bind nu sunu borom tabaaraka waxal ko boppam yow maa xalaqtul insa wal jinna illa liya'buduun maa uridu minhum risqin risqan wa maa uridu an yut'imuun sunu borom moo binduma nit jinne lu dul ñu jaamuma soxlawuma ñu di ma wërsëgal man sunu maay wërsëlaa kon bi wërsëlaa gaal kon bi kon nag soxlawu ma ñu dama lele ndax man sax duma lekk kon sëriñ bi nee na lool yi nga xam ne suñ borom moo waxal boppam ni moo tax mu bind nu te mooy jaamu yàlla kon sëriñ bi mi ngi koy fàttali bu baax a baax ñu dellu su di beesal suñ pas-pas ci suñ borom tabaaraka wa taala ci gëm ak wéetal ak jaamu ga yelloo suñ digganteeg moom ci suñ kem kàttan doonte jaamu ga yelloo suñ digganteeg moom duñ ko man ndax nam toll suñ boroom nun ñii dañoo tollul waaye nag ñuy jéem di ca góorgóorlu te loolu nun waa kër sëñ Darou Assane jullit ñépp la ko yàlla sant waaye nag sëñ Darou Assane da cee am ay mandarga yu leer naññ yoo xam ni mën nañoo wax ni fu mu àgg rek loolaa ko fa àggale bi nga xamee ni sëriñ Tuubaa mi mu yaakaaroon dénk ko léppam di sàkku ci moom ngërëmul yàlla te wax ko ca bayit ya ànd ak sëriñ Tuubaa ci ragal yàlla topp ndigal yàlla yi moytu ay tereem la ànde ak moom ba sëriñ bi ciy waxam mu seedeel ko ak ragal yàlla seedeel ko ak jaamu yàlla ci bu ko gisee moom sëriñ bi ak bu ko gisul seede gi jaamu yàlla bokk na ci li ñu nu nettali wax ni sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mos naa wax ni ndaxam demuma njàmbur waaye xam naa ni ku dem njàmbur fekk Mor Assane muy jaamu yàlla kon loolu di seede soo xam ni macha allah seede su rëy la te sëñ Tuubaa fa mu toll woon diggabam boroomam ci jaamu yàlla ragal yàlla topp yàlla wéetal yàlla kum dem ba seede la ba xam na ni am na kóolute ci yow boo xam ni bu la gisee bu la gisul boo soree boo jegee xam na ni ci lii rekk nga ne muy jaamu yàlla bam ne ndax am demumoon njàmbur waaye xam naa ni ku dem njàmbur fekk Mor Assane muy jaamu yàlla kon loolu benn la ci seede soo xam ni danañ ci mën a xame ni sëñ Darou Assane ku daan jaamu yàlla la ku ko saxoo woon la ak yeneen tegtal yiñ ci am yu baree bari yoo xam ni buñ ko doon lim dana yàggal jotaay bi lool waaye la ca dolliku mooy loolee mu ko waxoon ca bayit ba bul dañ di ragal yàlla bul dañ di ragal yàlla kon ba tey rek bul dañ di ragal yàlla daa fekkoon mu ne ca moo tax mu ne ko bul dañ di ragal yàlla kon sëñ Tuuba seede na sëñ Daaru Asan ci ragal yàlla ak topp yàlla ak jaamu yàlla sëñ Daaru Asan it feddli ko ci waxam loolu yi sëñ bi wax ci moom sëñ Daaru feddli na ko bu baax a baax ndax loolu cheikh mouhamadul basir nett li ni qaala li ibnu hasan njaay anna abahu kaana yaqulu lahum ijtahidu fi iqamati alfaraidi wa ma qtadartum alayhi min annawafili fa inni mundu taallaqtu bi hadha alcheikh ma amarani bi cheyin yajru ilayhi nafan dunyawiyan innama ya'muruni bima yanfa'uni min taa'ati rabbi kon loolu di fedd li mbooleem li ñu doon wax sëñ Basiiru ne am na doomi sëñ Daaru Asan ju ko mos a wax ne suñ way jur wa day sëñ Daaru Asan daananu wax ne na ngeen góorgóorlu te farlu ci taxawee farata yi suñ borom farataal ci mbooleem ku dib jullit waaye buleen ci yem farata yi moom bu leen ci manquel dara ak sart yaag la mën a àndal waaye bu ngeen jógee ci farata yi li nga xam ne moo di nawaafil di ay ndollent ci jaamu yàlla yoo xam ne yàlla faratu farataalu ko farata ju toll ni boo ko deful mu bëggal la waaye boo ko defee it mu yokk la gën laa kaweel nawaafil yooyu yëpp ndool leen yooyu moom itam lu ngeen ci man na ngeen ko def du luñ mën a matale waaye lu ngeen ci man na ngeen ko def sëñ Daaru Asan moo di dé mooy dénk ak njabootam yemu ca ni leen maa ngi leen di xamal ni sëriñ bii ngeen gis ma ànd ak moom muy muy sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu diirub bi ma ajoo ci moom ak léegi jox ko sama bopp musuma digal lenn loo xam ni su ma ko xoolee day doon njariñ ñuy dellu ci sëriñ bi waaye lu jëm ci topp sama boroom rek la may digal lu ma digal rek su ma ko xoolee ci topp yàlla lay jëm kon sëñ Darou Assane fedd li na moom itam nii sëriñ tubaa daawu ko digal luy nii njariñ luy dellu ci sëriñ bi doonte ñépp xam nañ ni sëñ bi musta digal kenn luy doon njariñ luy dellu ci moom waaye nag seede dafa gën a wér kon sëñ Darou Assane moom daa seede loolu te jàpp naa ni day sëñ Touba dara àgg na foofu segam buur siin ma nekkoon nitu adduna seede sam ko seede woon rek ca la amee daraja ju toll ni jam am kon yaakaar naa nag sëñ Darou Assane mii di boroomu cër wëlbatiku ànd ak moom jox ko boppam ànd ak moom ñeent fukki at walla yu tegal wëlbatiku seede ko seede si yaakaar naa seede soosu rekk cër ba mu cay am doyoon na sëkk ab liggéey diggam ak sëriñ bi waaye kon loolu lépp li tax ñu di ko wax mooy jaamu yàlla googu lu sëriñ bi di digal dina ci delloo ay firnde yoo xam ne da ko fee fekk mu jiitu ko doon sëñ dellu asan doonu meloon doon melow ñi ko fi wuutu woon ba agsi ci moom moo tax loolu mi koy fedd moom lay jiital ci ndénkaan yi nu gën cee de bàyyi xel bu baax a baax a baax kon ba loolu jàllee muy jaamu yàlla gi ak wéetal yàlla nu delloo boole bennale suñ bopp te loolu munta am lu dul dañuy benn bennale suñuy xol jëmm yi di tase nii rekk dëgg la ak daje la waaye nag daje bokkut ak bennoo bennoo mooy mbir mi bennoo buñ ko waxee mooy mbooloo moo xam ne koo ca dem koo ca xaloon xolom la ca xolom ka ca des rek nga cay fekk kon foofu la wax ji ne sëñ bi nee na kon booloo nañ bay mbooloo waaye nag nañ fexe ba bennoo gannaaw biñ booloo bay mbooloo bennoo gi na ñëw na ñëw ndax mooy tax mu am njariñ bennoo gi nag mooy nu bokkuk bëgg bokkuk bañ am jom te am ngor am jom te am ngor dafay mel ni léeg-léeg nit ki dina sóobu ci biir moom bu ca demee ba ca biir jom ak ngor moo koy jàllale te lépp lu baax noonu la boo cay sóobu mën naa yomb mën naa woyof waaye boo demee ba ca biir day jafe gis gann lenn ca loola nattub sun boroom la muy seet ba xam ñii liñ wax dëgg la walla déet seytaane it ma nga ca biir ndax bu xoolee xam ni ñii kat buñ rawee danañ rawaale mbooloo mu bare bari te moom ku raw lay bañ moom itam dana taxaw kar ñooña lu mu leen mënal ci lu leen di gàllankoor wàññi seen pësteef dëpploo ñenn ña taxaw loo ñenn ña dana ko def te buñ nee seytaane mbooleem yàq yi muy def ci nit ñi la koy jaarale ku am martabam maa teg sama bët ci seytaane bariwul waaye nag kenn ku ne boo seetloo sa xel yaa ngi gis ci mbooloo yi danga koo xam ne danga xam ni kii moom jëfi seytaane lay def ndax weesuwul nga xam ni kii day yàq ku yàq ku ne ca waxtu ba nga yàq yaa nga mënees na laa tudde seytaane saa boo génnee ci yàq nag tuddatoo ko waaye comme man di doon li feeg mi ngi yàq na xam ni jamono joojee mu yàq moom ci làngug saytaane la féete ci làngug saytaane la féete mu ngay liggéeyal saytaane man de dafa am mbokk moom mos di waxtaanal mu jekk-jekk ni man dey nit kuy woyofal kuy kuy woyafal jaamu yàlla ci kanam nit ñi laa gën a ban ci nit ñi nit kuy woyafal jaamu yàlla ci kanam nit ñi mu ne moom la gën a bañ ma ne ko man day kon wuute nañ man de li ma ki ma gën a bañ ci nit ñi moo koy yàq diggante nit ñi ma ni ko képp kuñ woyofalal jaamu yàlla nga woyofal ko daa fekkoon rek nga woyofal ko lu jiitu loola mu ne ko waaye yàq moom dafa yomb ci nit ñi ñaari nit luñ juboo juboo bu ñu amul ndimbal lool boo ca beddee kenn ko ah tey jii day dégg naa nangam ak nangam ci keneen ngir mu bañ koo bàyyi xel day jafe ka am sa ko kay day teg la nga wax nee di jéem xool kooka ba xam lii nga ko wax dana ko gis ci moomam déet te saa bu ko xoolee rek gis ko saa bu ko xoolee bu ko romboon gisu ko nuyu ko rek nuyuwu ko rek mu ne ah liñ ma doon waxal kon lii li tax ma di ko wax mooy bennoo gis sëriñ bi wax moo tax ma di ko wax booloo nañ ñëpp xam nañ waa kër sëriñ Daaru Asan bennoo booloo nañ ñi ngi leen ciy naw ñi ngi leen ciy ñeer ci booloo googu danaa ci wax rek xis sa bopp daanaa dégg sax ñu di ko wax waaye nii ñu ma ko détaayale nag ci koo xam ni daa fekke jotaay ba loolu laa ci musta am dégg naa ba tàyyi ñuy wax ni sëñ Sidi Muxtaar yàlla na nu ko yàlla fayal radiyallahu anhu daana wax ni bu ñépp ma soo mënoon a def ni waa kër sëñ Daaru Asam def ci boole seeni bis loolu dégg naa ko ba tàyyi yaakaar naa ko fi toog tey faral di fekk jotaay yi dégg ko waaye nag daa am ko daf ma koo gën a leeral koo xam ni daa fekk jotaay ba nam deme nee na dafa toog am ñu ñëw di ko yëgal màggaluk sëñ diw nee na mu ne ah, ah ñu fi ñëwoon ca fan yee ñoom itam ñu ne ko ah kooku waa ka sëñ diwa mu ne ñu ña fi ñëwaatoon boobee nag ñu ne ñooñ te waa kër sëñ diwa te loolu lépp di ci génn kër nga xam ni ñoo ñëwee ñëpp mel na maama leen boole nee na cëy mel ni day jàngal ñooña daal ni cëy bu ñëpp defoon ni waa kër sëñ Darou Assane day yoon wi dana gën a jëm kanam bu baax a baax déggal loolu yoon wi dana gën a jëm kanam nee daal di wëndeel baaraam bi ni ñoom day dañoo def nii rek mboolem màggal yi ñu def def ko benn rek muy sëñ Darou Assane bu ko ñëpp defoon day yoon wi dana gën a jëm kanam bu baax a baax ki ma ko nett ni nee na moo toog nee na ba ñooñu jógee mu tudd këru genn kër ci kër yu mag yi ci yoonu sëñ Tuubaa yi sax benn ëtt ci ëtti sëñ Tuubaa yi ni ñoom day màggal sàngam buñ ko boole woon rek sëñ diw ak sëñ diw ak sëñ diw ñépp ñu def ko rek muy benn loolu de bu ko ñëpp defoon yoon wi dana gën a jëm kanam waaw li tax may wax loolu nun mën a nun mën a demee bay suñu boroom baaxe lu mel nii nu am ko ba am ci tagg woowu waaye sëñ bi loo xam ne bu ko ñépp defoon dana jëmee yoon wi kanam te noonu ko sëñ Sidi Moxtaar waxe ni la ko ñépp xame ne loolu mooy dëgg sëñ bi loolu buñ ko amee sëñ Abdou Khadir nee na nañu laxasaay laxasaayuwaat fedd li moo tax ma ne nañ am ngor te am jom nañ am ngor te am jom te bennoo googu ak booloo googu lépp dafa mel ni ci bisu bii lañ koy saahirale ba ñépp mën koo gis teg ci seen bët bis munta ñàkk bis munta ñàkk ndax ni ma koy waxee rek yoon wi dafa am saahir am baatin lu mel nii nag saahir la kon mooy lii am na ku ko wax léegi ci jumaa ji sëriñ bi ñaanoon na ko suñu boom nangu ko waaye saaxi si nag taxawaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi mu fi bàyyi woon ak njaboot gi ak taalibe yi moo ko saaxiral waaye sëñ Dawda Xasan it ab liggéeyam ak ci sëriñ bi lépp sotti woon na waaye faw nun ñii noo koy saaxiral ci waxtu wu ne ak ñeneen ña muy taseel ëllëg kon daal sëriñ Abdou Khadir bennoo gii ma wax dellu siwaat boole suñ lépp ba boole suñuy xol bokku bëgg ñor na ko lool mi ngi koy soññe lool bëgg ñu taxaw ci bu baax a baax ba ba la ñuy àgg màggalu 2024 gii ñu jublu ñépp xam ni sëñ bi lim doon soññe di ko santaane ñépp teg nañ ca seen jom teg ca seen man-man teg ca seen lépp mi ngi ñaan nag yàlla muy dimbulee yàlla nañu ci dimbulee ci loolu mën a sant lépp ci jaamu yàlla gi ak bennoo gi ci bokk gi ak yoon wi ak diine ji yàlla nañu ci jàppale ba ndam yooyu nu ci am yàlla di ko yokk di ko gën a jëmee kanam te yàlla dogalit nag lu baax lu gën a yaatu moo gën yàlla nañu ca yoon wépp fekk loolu yàlla nañu ci yoon wépp fekk ba ñëpp bennoo boole seen lépp yàlla na nu ci diine jëpp fekk ba ñëpp bennoo boole seen lépp yàlla nañu ci àdduna bépp fekk ba ñëpp bennoo ay yeek ŋaayoo yeeg xeex yi ak xiiroo yi yépp suñu borom jeexal ko kon sëriñ bi mu ngi ñaan liggéey bii ñuy jeexal tey yàlla na ko yàlla gërëm bu ko gërëmee yàlla na ko yéegal ci liggéeyu seen kilifa ya mu gën ba àgg ci seen Daaru Asan ba àgg ci Cheikhuna Ahmad al Khadim radiyallahu anhu sëriñ bi mi ngi ñaan mbooleem jafe-jafe yi nga xam ni adduna bi yépp dañ koy dund tàmbalee ko nag ci fii nu féete di Sénégal ak Afrique ba fépp monde entier yàlla na yàlla jeexal jafe-jafe yi muy ay tawat yoo xam ni musuñu koo xam te wàcc si te jege lool te yaatu lool te sonne lool yàlla na ko yàlla teggi bu tawa di jàllee kenn ku ne xam na ni accident yi bari na lool agresseurs yi bari na lool ñoom itam li ñuy faat bari na ba agsi suñu dëkk bu tedd bii loolu lépp yàlla na ko yàlla tegg te lool lépp li ci gën a bari wàcc yoonu njub moo koy def lu ci bari moo koy def mën nañu lépp sax mooma kon nag yàlla yàlla na doole dimbale yoon wi yàlla na yàlla doole dimbale réew mi yàlla na yàlla doole dimbale àdduna bépp delloo si jàmm ak xiiwal ak yërmande ak sutura ak njub ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu xëy na ay kàddu loo ca góor góor góor góor góorgóorlu ci mbooloo mu am lu manqué waaye sëñ bi santoon na ma ma jotale kàddu yi ci ñépp kon yéene ji ak ñaan yi làmb na kuñ tudd làmb na kuñ tudd kon nag ñu waajaat rek subaak jàmm ñu tàmbali liggéeyu màggalu 2024 jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum